ah xëyaat dem liggéey. donc et le euh, finalement euh, génn na bureau yi mi ngi topp caravane Ousmane Sonko wala ba tey mën na continuer di liggéey euh, à distance. mais c'est des options. mais n'oublions pas aussi qu'il y a le congé électoral. qui est également sur sur qui une possibilité. mais moi je suis sûr et certain que nga man. campagne présidentielle doon fekk ma nekkoon di liggéey dans le privé. mais à distance aussi. j'ai travaillé. effectivement parce que caravane yi kañ lay commencer lu ci ëpp boo moytu midi wala après-midi. donc la journée. Mhm. si tu as des dossiers yoo xamante ni exigé yow peut tey nga ñëw ci bureau bi. Mhm. mais tu peux travailler su fekkee ne nag am nga yoo xamante ne ay urgence la te foog nga ñëw pour liggéey bi dox itam. tu seras obligé de venir et aujourd'hui man je vois que ni l'action gouvernementale ne s'est pas arrêtée man gisaguma ko dem fenn foo xamante ni ci loo xam ne livrable la wala loo war a sekk ak ministre wala directeur nga ñëw ñu ne la xaar ko dafa dem campagne il revient dans quinze jours de mhm. man gisuma loolu donc côté boobu euh, yaakaar naa sénégalais yi sax mën nañ ko apprécier seen bopp mhm. et bi ñuy wax naan directeur warul politique mhm. lii lañ doon xalaat yow nga tëj sa bureau weer dem ci àll bi doo ñëw sa bureau xamoo lu fa xew et tout ça war a revenir un mois après déedéet ici c'est pas le cas donc am na ñoo xam te ni dañuy ñëw liggéey si suñu paree dellu seen activité def seen activité politique xëyaat liggéey si waat Dakar mhm. donc pose problème y a énormément d'options les technologies aussi actuellement nous donnent énormément de ressources de possibilité et d'options pour pouvoir suivre notre activité professionnelle de façon quotidienne mm -hmm. mais aussi euh, d'entreprendre d'autres initiatives d'accord d'accord enjeu euh, élection législative yi pourquoi euh, tey jii le pouvoir euh, tient à cette majorité pourquoi ngeen bëgg am euh, cette majorité confortable ñenn ñi sax naan majorité absolue euh, lan mooy véritable enjeu yi waaw c'est c'est important ñu wax ko wax ko sénégalais yi mhm. parce que d'abord lan moo indi ñu laaj sénégalais yi ne nañ dem voter ji ñu jox ñu majorité mhm. ñëpp gis nañ assemblée bi fi génn ni mu mel yow mii constaté nga sa bopp ci ay comportement fii lañ ñëw loi d'orientation budgétaire ñu lànk ne duñ ko voté violer loi ñëw ci wàllu euh, déclaration de politique générale ñu ñëw viole prérogative yoo xam président de la république moo ko moom président de la république ñëw ne leen dama bëgg a supprimer institution yi ndax li ñuy jël ci alal actuellement alal jooju mën na dem feneen ci ay farata ñu gàntal ko comportement anti républicain bi nga xam ni Euh, majorité bi fi nekkoon moom la ñu am moo waral tey président de la république dissoudre ko. Mhm. bi mu ko dissoudre woowaat ne nañ dem laajaat sénégalais yi comme il y mois sept mois ci ginnaaw. ñoo defoon choix ci li nga xam ni loolu lañ leen jaay. ba tax ñu jëlee ñi fi nekkoon teg ñu fi. Mhm. na ñu delluwaat ci ñoom wax leen suñu nan la ñuy matérialiser choix boobu noonu nga xam ni ak li nga xam ni moom lañ leen joxoon le 24 mars. Mhm. donc on y va cette fois pour avoir cette majorité inchallah on l'aura pour la simple et bonne raison que boo jëlul sax ci wàllu programme mën nga jël sax wàllu programme en attendant ngi tegee na le mhm. ñun ñi ñu bokkal géew gi ñoo fi jógee il y a six mois mhm. ñooñu pendant douze mois yoroon nañ majorité mhm. te problème yi Sénégal yi dund ñoo leen ko teg donc kooku su ñëwaatee tey ne la joxaat ma majorité ki nga joxoon majorité douze ans mu teg lay jafe-jafe yi kooku bu ñëwee 6 mois ne joxaat ma majorité ma lu ma liggéey donc kooku soo ko gëmee yaa bëgg nax sa bopp. donc ñii di wax moom yaakaar naa ñoom ak sénégalais yi euh, rupture de confiance bi am bi tax ba ñu jëlee leen fi 24 mars sénégalais yi xam nañ li tax ñu def ko mu des nag ñun ñi nga xam ne dafa am lu ñu leen promettre. Mhm. war koo tàmbali. et d'ailleurs on a commencé ci li nga xam ne bi ñu fi fekkee ce sont les possibilités. Mhm. pas mal d'actions qui ont été posées président de la république bi mu ñëwee woote ne li nga xam ne moo di assise de la justice. mais assise yi dafa am réforme yoo xamante ni pour nga mën ko doxal. Mhm. dafay laaj ñu xool wàllu budget te budget boo ko dee wax foog nga dem assemblée nationale. dafa am yoo xamante ni itam dafa am ay loi ak texte yu fi nekk. Mhm. yoo xam da ko war a joyanti donc foog am majorité pour mën ko def ci wàllu bonne gouvernance transparence saytu alal yi nga xam ni ñi fi nekkoon moom am na yoo xamante ni yenn euh, kuréel ci wàllu yoon yoo xamante ni soo ko bëggee am foog nga jaaree ko assemblée pour teg ko donc faaw nga am majorité ak projet yi nga xam ne moom la ñu bëgg a commencer exécuter sa budget assemblée nationale moo koy voté donc loolu noonu yëpp tey jii soo ko bëggee am foog nga am une majorité majorité gi nag tekkiwul ni buñ la ko joxe yaa doole ji di buur di bu muy comme ñoom niñ ko daan defee lu xew ci réew mi ko judoon majorité bu mécanique non non non non non on veut une majorité réfléchie au service de la République majorité boobu la ñu bëgg te looloo nekkoon suñu aspiration même dans l'opposition une majorité réfléchie non mécanique et au service de la République mooy suñ leen andilee dara te gën naa liñ leen di andil ci intérêt Sénégal lay nekk ndax exemple bi gën a ndaw il une loi un projet de loi sur la souveraineté économique pour joxaat saytuwaat Sénégalais Sénégal comme koomam am amam pour mu war a mën a delluwaat ci ñoom les secteurs stratégiques nan lañ ko war a yore les ressources stratégiques nan lañ ko war a yore nan lañ ko war a joxe ak nan lañ nan lañ ko war a yore mais loi yooyu noonu pour mu jàll foog mu jàll assemblée nationale foog nga am majorité loi bi nga xam ne tey jii ci wàllu fonction publique mm. les postes publics et tout ça pour ñu tëgg ko organiser ko à travers pour am ay appel à candidature ak yu ni mel mais loolu foog nga def ci loi et exemple bi lay wan majorité yi ni mu amee solo. Mhm. keroog bi ñuy réviser la commission euh, le des la commission des droits de l'homme oui. mais bi ñu koy réviser assemblée nationale ci le président de la république profité dugalaale ci benn amendement boo xamante ni pour que léegi kiy jiite commission bi dañ koy tabb par appel à candidature. Mhm. loolu assemblée nationale la ko defee donc suñ ko bëggee def ci structure yu bari ci wàllu état ça veut que bëri na texte yoo xamante ni foog ñu joyantiwaat ko texte yooyu yaa ngi koy joyantee biir assemblée nationale. bëri na yoo xamante ni mën nañ ko lim ay projet de loi yu tege di xaar yoo xamante ni majorité moo tax fi mu toll nii mën gun nag ndax ñi fi nekkoon suñ ko dugaloon tey jii yow ki la ki la ne dama bëgg liggéey ak yow. Mm-hmm. réew mi moo ma ñoom ñu yàq réew mi lu ba alal réew mi ba ñu am problème mu jafe-jafe ci xaalis wëlbatiku ñu ñëw ne leen supprimer leen ñaari institution yi pour que réew mi am tuuti koom ñu jël ko yóbbu ko ci farata yi ngeen gàntal ko kon ko bu kooku noonu wax la loolu nga gàntal ko su àndee projet de loi yoo xamante ni mooy leeral ni ngeen fi nekkee woon war leen atte ci ni ngeen nekkee woon ñooñ dañ koy gàntal donc nag ñun pour ñu commencer mettre en li nga xam ne moom la ñu jaay Sénégalais yi bu ñuy jënd ko le 24 mars il faut ñu am majorité boobu noonu pour mën ko doxal maanaam bi ñuy dem élection le mhm. président de la république Bassirou Diomaye fay dafa am lu ñu tuddee projet oui. projet ay yéene la fas yéene naa def lii dinaa def lii dinaa wàññi lii dinaa yokk lii dinaa lii fii dinaa lii fii dinaa lii fii soo ñëwee danga koy traduire en programme mhm. boo xamante ni nga tegal ko ay àpp ki mhm. loolu nag nattal ko ne budget bii moo ko mën def loolu nag pour nga mun ko matérialiser foog nga am luy jaar lay jaar assemblée nga am mbooloo muy tax yow mu mën la ko votel nga mettre en œuvre li nga xam ne moom nga dig Sénégalais looy wax euh, opposant yi nga xamante ni jàpp nañ ni que voilà euh, majorité euh, mën ngeen ko ba a am te du leen tere liggéey parce que Ousmane Sonko ñoom sax loolu la ñuy wax yàgg na koy wax te aussi position yi ba ñuy changer si le peut-être discours bi changé que Ousmane Sonko ba mu nekkee ci à l'opposition demande demandait à ce que moom mu am majorité pour mën a contrôler l'action gouvernementale ñoom aussi demande la même chose mën a mieux contrôler l'action gouvernementale Euh, léegi damay damay damay euh, ci benn ci ci ci ci ci benn bu ndaw. Mhm. benn firnde. oui euh, ñoom élection législative deux mille vingt deux lan moo leen jaraloon ba ñu dem xëccoo benn député pour mën a am majorité bu doon keñ ñoom li ñu wax ni dëgg la que ni ñun pour ñu doxal soxlawuñu majorité. ñoom bañ ci tollee woon lan moo taxoon kon mu jaraloo leen ñu dem jël benn député bi nga xam ni bokkul woon ci ñoom mais ñu fexe xëccu ko ci ñoom. lan moo ko waral. donc xam nga bu ñu nax Sénégalais yi. Sénégalais yi kenn mënu leen nax ñaareel bi. ñoom bëgg waruñu leen jox majorité comme ni ma la ko waxee. oui parce que ñoom ñoo fi nekkoon 12 ans. mais am na ñoo xamante ne nekk ñu fi ku mel ni Barthélémy Diaz euh, ak waa Sàmm Sa falaay falaay ñëw ñenn ci ñoom waruñu leen jox majorité parce que nekkoon nañ fi 12 ans am majorité liggéey ñu réew mi ba jafe-jafe yi réew mi nekk ñoom ñoo ko def effectivement ñooñu noonu lañ daan ñëw teg commission d'enquête parlementaire du bouger millimètre du bouger centimètre c'est donc xam nga du ñooñu tey ji la ñu war a joxaat majorité et dans l'autre position de l'opposition mm-hmm. mais opposition la ñu war a jox majorité ban opposition la bi ko Ousmane Sonko di wax mooy seen opposition boo xamante ni day nekk dans la construction dans la formulation d'idées dans la formulation de projet de loi qui renforce la gouvernance et l'exécution des politiques publiques opposition boobu la ñu wax ni opposition boobu moo yaayoo majorité i je laisse au Sénégalais l'appréciation est-ce que opposition bii ñu gis nga xam ne ci saaga wax ju ñaaw xalab nit déggoo leen benn yoon ñu matérialiser li nga xam ne benn programme de législature déggoo leen ci donc di opposition bi la ñu war a jox majorité donc biñ Ousmane Sonko nekkee ci opposition bi di wax naan opposition bi ñu war a jox majorité moom firnde firnde la woon ci parce que ba mu nekkee assemblée nationale nekk député ñëpp gisoon nañ taxawaayam boo xamante ni lam doon wax di ko saytu di ko orienté c'était luy njëriñu Sénégal donc su opposition bi xëy na nekkoon ci taxawaay boobu mën nañ leen ko nangul mais opposition bi nekkuñu ci taxawaay boobu opposition biñ taxawaay bi ñu nekkee mooy mimétisme wax ju ñaaw saaga euh, jël benn nit tout le temps suba ba jant ci moom ba bongoon jot ci moom ngay nekk donc dus opposition bi lañ doon wax. et d'opposition fi nga toog le Pape Djibril Fall euh, ñoom euh, am nañu ay programme bokk na ci euh, wax naa ko léegi saytu l'action gouvernementale teg haute cour de justice ak yeneen ak yeneen voté loi yi nga xamante ni voilà sénégalais peut-être bañ bokk na ci sax. loi bi nga xamante ni mooy am amnistie bi ak yooyu ñoom dañ siy wax. je veux pas je veux pas mais moom ci législature bi fi jóge la bokkoon. Mhm. yan action la teg luy saytu action du gouvernement. <laughs> ce serait bien que ñu def bilan ñi fi jot a jugee ba pare ñi nga xam ne ñu ngi woon ci législature bi fi jugee su ñu bëggee gëmloo que ni tey dañu bëgg a def li nga xam ni seen seen programme mooy saytu action l'action du gouvernement comme ni ko constitution waxee mm-hmm. waaw moom mu ngi woon ci législature bi passé yan jéego la teg yuy saytu action du gouvernement donc suñu ko waree ba ñu gis ko mu dal suñu xel mm-hmm. sénégalais yi gis ko boobaa mën na leen convaincre ci argument boobu mais ça je pense pas que d'accord sànq tey yaa ngi insister mii la qualité des débats quand même Sénégal yi euh, am na ay kaddu yoo xamante ne rafetlu ñu ko et de part et d'autre euh, dañuy gis souvent euh, débat yi dafay xaw nekk ay débat yoo xamante ni xaaruñu fa ñi nga xamante ni ñooy homme politique yi bëgg dem assemblée nationale contrat de législature souvent sax doo ko dégg wala sax si ñu ngi koy dégg mooy ñi nga xamante ni amuñu boobule dayoo ci politique est-ce que quand même du seen responsabilité yéen ñëpp da ngeen abandonné les idées dem ci ay euh, xale ba ak yenn affaires yi. non non Pape on ne mettre tout le monde dans le même sac. non c'est une question. non on ne peut je pense oui c'est une question je te le concède oui. mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mm-hmm. parce que ku topp Pastef. oui de 2014 ba 2024 bii ñu jël nguur. Mm-hmm. yaakaar naa du Pastef la ñuy wax débat d'idées. Mm-hmm. Pape Matar kan moo nekk bëgg a nekk candidat. bind ab livre woo ay journaliste ay contradicteur mm-hmm. ne leen kaay leen ñu débat di de Ousmane Sonko loolu on était dans l'opposition boobu ñëwaguñ sax pouvoir mm-hmm. mais du jeex du xàcc suñu mouvement des cadres ñaar yoon la le tenir les universités du Moncap mm-hmm. di produire di joxe ça c'est Pastef te ñun bi ñu koy def étant dans l'opposition tey jii ñi nga xam ne ñoo fetti ci opposition nekkoon ci nguur gi. Mhm. jamono boobu ban réponse lañ ñu doon jox mosul nga gis ko ci nangu woon débat di xalaat wax ju ñaaw jàpp benn groupe wala benn parti naan leen salafiste rebelle. effectivement euh, voilà wax yu ñaaw. c'est vrai ñooñu tey ñoo fi nekkoon démb doon nu wax loolu tey ñoo tourné ci opposition bi bëgg ñu wax débat de mhm. te ñun bi ñu leen ci wow nun bi ñu nekkee ci opposition bi fekk ñooñu ci lu dul ay saaga euh, wax ju ñaaw. donc loolu suñ ko dee wax débat d'idées du Pastef te ñi nga xam ne ñoo ñoo néewal débat de ci langue politique non Pastef bokk ci Pastef da nga koy boole. mais Ousmane Sonko day cokkaas. waaw mais dafa am loo xamante ni mais. su dee cokkaas bu cokkaasee di wax. non dee cokkaas. du wax ju ñaaw. parce que non day cokkaas politique la. waaw politique la mhm. mais du wax ju ñaaw ba tey. Mhm. mais déglul li muy wax. Mhm. nee naa la actuellement ku koy suivre. c'est di nga jàng lu bari. parce que fu mu dem chaise lay teg. wax ak nit ñi. ci li nga xam ne loolu la ñu nar pour réew mi. mais pendant ce temps yow dama lay laaj ci yow yaa ngi suivre. wax dëgg yàlla wax ma man keneen koo gis ku ko répondre ci lu mel noonu au contraire. cokkaas yi moom la gars yi di tontu. <laughs> kon nag kon moo lay suñ demee ba ñoom fo cokkaas la ñuy tontu kon moo lay wan ne amuñu programme ci wàllu euh, ci wàllu pouvoir euh, législatif bu ñu mënee a jaay askan Sénégal et Pape on sera toujours dans cette dynamique. Mm-hmm. parce que dafa am loo xamante ni gëm nañ ni ñun et je tout le temps di mm-hmm. euh, opposition bi bis bu bàyyee. Mm-hmm. di wax ci ñun tey wax ak sénégalais yi xëy na boobaa dina dugg ci débat d'idées mais seen problème yëpp mooy c'est que ñun sénégalais yi la ñuy waxal moo tax sénégalais yi di ñu déglu di ñu comprendre mais ñoom ñun la ñuy waxal donc bés bu ñu cessé bis bu ñu arrêté di wax ci ñun tey wax ak sénégalais yi comme ñun ni ñu koy defee moom ñoom dinañ dugg ci débat d'idées mais nous on dans le débat d'idées on y reste on y sera toujours parce que xam-xam dafa nekku cëslaayu Pastef mm-hmm. et te li lay wan ni dañu dañu ñun dañu nangu contradiction mm-hmm. bi ñuy lancé le référentiel Euh, Sénégal euh, vision Sénégal 2024. 2024 mais y avait un panel non. Mhm. panel bi est-ce ña fa nekkoon ñëpp ci ñun lañ bokk. non non. dañu jël ay xam-xam ko ci nekk si secteur bi nga nekk. gis nga koo xamante ni nee na lii baax na waaye suma ma sañoon ñu dolli ci lii. c'est ça une république. Mhm. une république c'est que yow mi ñu dénk yaay xàll xalaat teg li nga xam ni sa prérogative la nga doxal ko. Mhm. ndax am na loo mën a doxal. te doo ci laaj kenn nga doxal ko mais li nga xam ni nag mën nga ko doxal waaye mën nga ko bokk ak nit ñi loolu nga teg ko ci place publique bi ku ci nekk joxe ci xalaatam et d'ailleurs activité majeure yi ñu defagum ci république bi yépp ça s'est passé comme sa mm-hmm. assise de la justice oui. on est allé même jusqu'à des anciens détenus mm que jàpp nañu li ñuy waxtaanee dafa ñor askanu Sénégal ñëpp a ci am wàll mm-hmm. ñu teg ji nga ji nga ji nga débat yu doon am ci ci ci sous commission yi. ku ko fekke woon di nga xam ni lii nii li fiy génn du nekk xalaatu président de la république kese du nekk xalaatu premier ministre kese mais xalaatu askanu Sénégal ci ñi ko teewal ci bànqaas gii la et ça c'est notre démarche moom lañu def ci assise de la justice c'est ça qu'on a fait lors du lancement parce que boo déggee premier ministre mu ngi wax ni. Mm-hmm. li tax defaguñu document final bi. Mhm. c'est que dañu bëgg a teg waxtaan. invité nit ñi joxe seen xalaat. ñu amandé ko ñu recueillir avis wu ñi nga xam ne dañ ci am seen gis-gis ñu jàpp ni lii soo ko ci doolee dina defar. Mhm. li nga xam ne jàpp nañ ni ñoom gis nañ ni lii euh, war nañ ko xoolaat ñu xoolaat ko ci. Mhm. c'est ça une de publique dafa am yoo xam te ni suñu gis-gis mooy. am na yu ñu mu yu ñu war a bañ a politiquer. mooy mën nañ ci bâtir ay consensus yoo xam te la ciy tukkee bu ñu ko mettre en œuvre mettre ñu ko en œuvre pour yow wala pour man wala pour kenn kenn exclusivement déedéet on se sera mis en œuvre pour l'intérêt du Sénégal c'est ça notre démarche cette démarche ni ko président de la République di waxee cette démarche de co-construction et li ñu fi tegagum ci activité majeure yëpp noonu lañ ko doxalee donc débat d'idée contradiction nangu dem ci contradiction vraiment euh, Pastef ci la mës a nekk ci la juddu ci la màgg ci la jëlee réew mi moom noonu la nar a noonu la nar a doxalee incha allah. Euh, ci li nga xam ne moom la ko Sénégalais yi dénk. leneen li nga xamante ne aussi euh, ñu ngi leen koy euh, wax comme ay critique mooy walla transhumance da ngeen ko doon bañ jamono ji am na ay maire ak ay personnalité yu jóge ci kujje gi dem di soutenir.